ñu dem Tiwaawoon seeti borom parasol ba bàyyi Sëriñ Babacar Si bàyyi Alaaji Mansour bàyyi Cheikh Alxaaji Muhammadul Habib Seydou Aliou Suufi attaqiyi xaamili liwaa yi fi tarqati janiyati fi diyaari sénégaliya mawlana alhaaji malik ibnu ousmane mawdo kam abidin zahidin kam alimin wariin kam salikin wasilin lawla kama kaana kam tansuru ilma kam taqri duyufa wa kam turdi ilaha wa kam asqata sheytana mawdo kam issa kam silta kam basarta kam wala kam kam kam wa kam summa kam arsata hayrana mam mawdo bazalta malan wa ilman musriyan li faqirin hadiyan li jahulin yabna ousmana ah, jàmbar ja seex sidil haaji Malick وهذا ما هذا لكن لا يماثل من تواضع وقصور القلب ورتمين أبدا معلوم تواضع وخضوع القلب والرتم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا سواء في القدم مصطفى من كل وصف حميد هذا أفعال تصبين رجاء البراء يا يوم مصدى الحاج مالك من كل وصف حميد هذا أفعال الحاج مالك الدين رجاء البراء يا يوم مزدا سيد العادي مالنا وكان أصجاء الناس أعزاء سيد العادي مالنا وكان أصجاء كفوا يا ندبلي وكان أصجاء حسنه خلقا وخلقا وخير الحين والسيد الحاج مالك نام ذلي وصف حميد عاد أفعال سيد الحاج مالك نام دين رجاء البرايا الأمم يقصد العادي مالنا ما كان تحتاج تبيدا فجاءته أهل المدينة تسعى الليل فضعي كل وصف من كل وصف وصف حميد عاد أفعال العذب لنا نبي يا يوم مزدان ينند فالكان إذا أحمر وبعث يتقون مصطفى بغلال وقد بدت في حنين غاية القوم إذا أمر يا سيد العادي مالنا كانوا إذا حمر بعز اليد قولا مصابا بخلال وقبض بخلال في حنين من غاية الخون سيد العادي مالنا كانوا إذا حمر بعز اليد قولا مصابا غاية اللطف أي مصطفى كانوا إذا مربا سليتقوا نبيه نبيه وقد بدت نبي في حنين غاية القدوم مالنا وسليا يا إله واو هي وجزيا أبدا أنت دقليل أن محمدا المختار في سيد الحاج مالنا كانوا إذا مربا مربا سليا تقون به وقد بدت نبي في حنين غاية القدم محمدنا وسلم يا إله واو هو جدي أبدا دقلو أنا محمد أنا المعتار Mouhamadou Lamine mi jaar naa way. sallallahu alayhi mooy sayyidal kawnayni. nee na Seydina Mouhamed mooy sangu ñaari univers yi te mooy àddina ak alaaxira. nabi mooy alamal huda. Cheikh Anta nee na soppee Cheikhul Khadim soppee Seydil Hadji Malick soppee Cheikh al Islam mooy drapeau njub. ko mooy batratim nee na si ngir Muhammad mooy weeru mat yi moom rasulullah fil wujuudi alal madaa fil wujuudi ci mindee fi alal madaa cig lef yaa xayra xalqillaahi nee na ko yow mi gën ci mindee fu yàlla yi yaa man faydu nee na si ngir Muhammad yaa man woonaa ka nga xam ni fayduhu ak bëbb moom rasulullah amma al baraa al multaa wal mubtadaa nee na màkka ngëneel yaag teraanga ya matale na mindee fi moom rasul yow nabi yaa kaw kaban yow nga xam yaa biddiw bi faaqal budu moo kawe weer yi bi xusnan ci bi xusnihi ci sa taar yow rasulillah ya mursalan yow mi yàlla yónni bil xaq ci dëgg daw man sarmada daw da faawu sarmada akub dappitu ya bahra ilmillahi yow géeju xam yàlla ya kan salata yéen ci jula Muhammad mooy magasin joxe ya duratal akwani yow mi nga xam ne yaay wurusu adduna ya qataran nada yaay toqug waame yow rasulillah ya nasar din ba mu dëgër wa ahli ak ñu diine yaa saaqil kufaar yaa saaqiyal kufaar yow mi nga xam ne yaa nandal yéefar yi kasaati rada yaa leen nandal kaasu alkande yow rasulillahi say alhaadi abdul aziz ne mooy muhammadin yéen sidina muhammad bàyyi son umay wax waaw habibika alkarim mooy soppe yàlla mu tedd ma nabi mooy ayni naimi xam nga yun ci yàlla ibrahima mooy xaritu yàlla mm-hmm. jàng ko ci alquran yàlla wax ko ni wa taqazallahu ibrahima xalila yaay sama xarit yàllaa ko wax Ibrahima sama xarit mais sa xarit da ngeen xuloo léegi xeex léegi sangu àndaat mais sa soppee lu mu def neex na la